file ci sëg yu nekk ci Yoff lay daal di noppale ko Sidiya Ndiaye moom mi faatu ni ki démb suul nañ ko tey jile ci alxamis bi ndoorteelu bés bile foofee ca l'hôpital principal bu Dakar njabootam xaritam ak i jegeñaaleem ñoo xamante ne liggéey na ak ñoom ak yeneen i autorité ci biir réew bu Sénégal ñëpp ñëw teew levée du corps am file nag boo yegsee tekk tekkaaral moo fi daal di am gannaaw loole ngay gis ci xar kanam yi tiis ak metit daanaka kaddu yi benn la syndicaliste bu dëgg woon waaye tamit patriote bu bëggoon réewam lool. monde du travail les acteurs des collectivités territoriales l'ensemble des agents ñoo xam ne ñu ngi si yi ñu ngi si mairie yi ñoom ñoo perte un partenaire. Sidya jàngal nañu ko Sénégal ñun ñoo ko moom mais surtout lu am solo si àdduna mooy jub ak surtout liggéeyal. askan wi ak nit yi nga xam ne da ànd ak ñoom ñun nag conseil économique social et environnemental ñàkk nañu lu bëri jàngkat la boroom xam-xam la dañ koo gisee ci syndicaliste waaye ma mën a témoigner ndax damaa jaar ci loxoom. amoon njubte ñëpp xam ko Sidya Ndiaye dafa maandu ñëpp xam ko Sidya Ndiaye dafa tabe mën a accompagner nit. gannaaw ba mu amee feebar bu metti Sidya Ndiaye daal dinay ñàkk bakkanam de ñëw xàjjali couple boo xamante ni dund nañu fanweeri at njabootu lëmm daal di doon ay jëriñ. du ñu manqué dara day jënd di teg rek. li ma dénk njaboot gi rek li ma dénk njaboot gi rek naan day dem ma ne ko doo dem il s'est battu jusqu'au fi nekkoon secretaire général bu fédération des travailleurs du Sénégal dem na tey jile ba faw